kooku dane woon jamono ji de moom gis nañ ci yu doy doy waar te mooy rekk ay àttekat yoo xam ne duñ àtte mukk dëgg xamuñu te seen ñàkk xam googu du tee ñuy àtte di àtte nag loo xam ne du dëgg mu ne ay àttekat li ñoo xam ne ñu beew a beew lañu ba noppi nag bu ñu maandu ñu xam àtte ñoom ñuy diingat àtte yooyee dane na la wóor ne bëgg àddina ngir àddina rekk nga xam ne bëggoo ko ngir defare ko àllaaxira àddina ci boppam rekk nga bëgg ngir sa bakkan ak sa bànneex loolu day mooy jur ay wune mooy caabi ay wune ni nga xam ne moom la alfudaylu waxe woon ne daa mel ne dañoo seet mboolem yi bon tëj leen ci benn néeg def nag bëgg àddina goo xam ne ngir defare ko àllaaxira taxut muy ceebit nee boobee nga xam ne mu ëmb mboolem yu bon yooyee mel na it yu baax yëpp yëpp yëpp dañ leen a boole def leen ci benn néeg te nag caabi nee ba mooy wan gannaaw àdduna mooy bañ koo bëgg rekk te defare ko àllaaxira taxut bañ koo faale daal wala bu ko dee faale itam bëgg àllaaxira rekk tax loolu mooy ceeb yi am yépp yiw mel ne buñ defoon yu baax yépp ci benn néeg wan gannaaw àdduna gu mel noonu mooy ceeb ja mooy joxe mboolem yu baax yooyee wax bu nee na dafa am benn waay bu toppoon kenn ci làbbe yi lu mat juróom-ñaari fan ndax bëgg làbbe ba wax ko baat bu mën a jariñoo waaye làbbe ba nag moom tudd yàlla ak xalaat doy na ko sëkk ba tëlul dara dara dara juróom-ñaari fan yëpp daal amul jotu wax ko benn baat ba ci bisub juróom-ñaareel ba nag mu ne ko xam naa li tax nga topp ma booba tey waaye kaay ma jox la baat boo yóbbaale mooy jàppal ne bëgg àdduna mboolem ñaawteef yi moo ci féete kaw te ñaawteef yépp ci lay juddoo te du àdduna it mboolem yiw yi moo ci féete kaw te yiw yëpp ci la juddoo mbir nag balaa sotti rek yàlla defal la ca tawfiq mooy loo farlu farlu nag teel ñaan tawfiq ndax ku yàlla defalul tawfiq moom farlu ga du feeñ addis ba nee na ku xëy yàlla gis ne moom daal li ëpp ci yitteem yëpp addunay kese la faaliwul alaxira yàlla day def ci xolam yett yi benn ba mooy ñagg-ñaggi xol joo xam ne day def ñagg rek ci xolam di wéy ak soxla soo xam ne du faju mukk bam noppalu am jàmm ak ñàkk goo xam ne day wéy rek du am yemukaay mu ne nee nañu koo xam ne xolam daa bëgg àddina lool lool ba mel ne nañ ko caa jaxase xolam boobu du tàggu yett yi mooy faaw mu am soxla soo xam ne da cay sonn rek di wéy faaw mu am mébét moo xam ne lu yàgg-yàgg du am fu mu yem faaw mu am xër goo xam ne itam du am fu mu yem du am mukk daal lu ko doy ba xër ga dañ ci moom mu ne àdduna day day lu doy day waar dafa mel ne day wut ñu ko wut koo xam ne nag moom daa dugg ci wut àllaaxira àdduna ci boppam moo koy topp di ko wut di ko dabu nga xam ne wut ga wut àllaaxira du ko tee am ab cëram ci àdduna waaye nag ku wan gannaaw àllaaxira di wut àdduna moom ah àdduna li moom la la ci yàlla bindal rek nga cay am moom du yokk du wàññi ko alaxira nag moom topp ci kii wut àdduna ne ko dann rek ba keroog mu koy jàpp mooy faaw rek dee dikk yóbbu ko ca kërug alaxira ga Yaxya dane woon xam-xam bu am njariñ yàlla dana ko di wàccee mu bàyyi ko ci asamaan jëme ko ci xol yi waaye nag day seet xol boo xam ne yent yi nekku ca xol boo xam ne jeng jëm ci àdduna da caa nekk mbaa bañ a doyloo yitte tey xanaa di xalaat ëllëg ak ëllëgaat ak yooyu ni mu cay def ñoom dañoo jàpp ne yitte tey rek doy na waaye nag ëllëg moom bàyyi ko yàlla mbaa jekki di añaane kenn ci mbokki jullitam mbaa bëgg daraja yent yi xol bu mu nekk xol bu yent yi nekk daal xikma bi yàlla wàcce mu bàyyi ko ci asamaan muy xam-xam bu am njariñ ànd ak leer du ca wàcc mukk xol bu yi nekkut nag lay wàcc maalikum nu dinaar ak ñeneen dañ daan toog wax seen gaay ne leen gaay leen lu tuubal yàlla bàkkaar bi nga xam ne ñu bari jàpp ñu ne sax bàkkaar la ba di ko tuub te rek mooy bëgg àddina cheikh afdaluddin dara wax naa su fekkee ne njabar dañ ko araamal ndax rek des na jabar ba teqale jëkkër ak jabar mu nekkoon day àdduna moom wares na ko araamal ba bëgg moom day dox diggante xol bi ak borom ba sàkk xol bi àdduna day njabar xol yi ba teqale leen nag seen borom kon nag moom lañu war a gën a araamal maanaam daal bëgg ko lañu war a gën a araamal muy nag bëgg àddina mi ngi feeñe ci yent yii te kat yent yi amu ci lenn lu mën a ñàkk ci dunduk doomi aadama alal mënta ñàkk ndax faaw nga aajowoo loo sol ak foofatu di fa moytu tàngaay weeg sedd bi te loolu alal moo koy maye ñam mënta ñàkk ndax doomi aadama yàllaa ko bindee faaw rek muy lekk ka naan melul ne malaaka wax mënta ñàkk ni la wit mënta ñàkk kon nag yent yii loo ci bëgg te faj lor rek tax nga bëgg ko mbaa loo ci bëgg te wut ngërëmul yàlla rek tax nga bëgg loola kon loola ak jaamu yàlla la yu lay jëmale ci yàlla la waaye nag loo ca bëgg te yéene woo ca yéene ju dellu ci yàlla ak ngërëmam mu daal doon ak bëgg àddina goo xam ne dalay lor ndax ne alal mi mu njëkk wax day bewloo nit ndax daanaka ku amul rek xamaguñ nu mel ku am ba noppi rek te am am bu soppiwu ko lañuy door a xam ne kooka yàllaa ko baaxe ñam lekk itam mënta ñàkk waaye dañoo bëgg bala ngaa lekk xiif te booy lekk nga yéene ca am wér ak kàttan ba mën a matale jaamu yàlla na nga mëne moom it bul ca weesu loola bu fekkee ne jëmm ji dafa taqoo rek rek saa yu nekk xolam day daal di wow saxoo rek day wowal xol wax ju bari itam te ajuwul ci lu am tuyaaba du tudd yàlla du lu mel ne tudd yàlla day wawal xol ba noppi nag gàllankoor kooko ba du mën a wax lu am njariñ ndax ndegam ay waxam daa bari ci lu amul njariñ kon du mën a bari ci la am njariñ nelaw it mënta ñàkk waaye del nelaw rek lu tolloog la mën a sàmm sa wéru yaram ba nga mën a taxaw ci topp yàlla gém sa kàttan waaye nag boo bëggee ci ay nelaw lu weesu loola rek kon ñu boole ko ci ak bëgg àdduna mu ne nag xeet ya jiitu woon day ña ca amoon xel ak gu yeewu daanañu wax àdduna nu mu ñàkkee solo ak nu mu mën a yàqale nit ku mësaa taxaw ci biir aw xeet di woote rek moo xam ab yonante la moo xam waaju baax la faaw rek daana wattandikuloo nit ña topp àdduna bi bëgg ko di ko dajale fekk na nag li mu bañ rek mooy bëgg àddina ngir àddina waaye nag bëgg àddina ngir defare ko àllaaxira moom day daal di bokk ci àllaaxira bokk ci liy maye ngërëmal yàlla nee na net li ñu wax ci mbiri àdduna ak ni àdduna mën a ware ak yàqu-yàqu yu ci nekk dafa bari lool lool waaye li ci suñu borom wax rek te tàmbalee ci innamal xayaatu dunya laibun wa lahun wa zinatun ba ci wa fil axirati xadaabun shadid wa maghfiratun min allahi wa ridwan teg ci ne wamal xayaatu dunya illa mataahul wurur loolu boo ko toppee rek ëmb na bon boni àdduna yëpp yëpp yëpp ndax daa wax ne dundug àdduna paxum gone laag paxum mag paxum gone mooy paxum kese moo xam ne amul lenn njariñ mel ne war fa subant rek di dawal paxu mag nag mooy pax moo xam ne bu amee njëriñ néew na lool mel ne mag war aw fas di ko dañal rek noonu dafa rek la ci jublu mu ne àdduna lool rek la ak taar taarlu ak ëppalante ay alal ak doom di wéy rek mu ne nag alaaxira day mbugal mu mettee nga fa te ña jëm ci àdduna rek fàtte alaaxira ñoo moom mbugal moomu ba tey alaaxira am na njëggal ak ngërëm lu réy réy lu bàyyi ko ci yàlla waaye mi ngi jëm nag ci jaamam ña nga xam ne ñoo fexe woon ba àdduna fàbbiwu leen taxaw temm ca lu leen war ñeena ci waxkat bi la waxoon te waye ko ci daaju baxru bi ñu wax asariya ne li des ci sa dund jéem koo jeexal ci topp yàlla te moytu warkat bi nax la ba yóbbaale la laxasal te fogaru jëm alaaxira te yóbbaale yóbbulut ragal yàlla ndax àdduna mi nga nekk li ci nekk lépp luy gaaw a jeex la ba noppi nag mën a war nit lool lool al imaamu xali yu waxoon na xàmmaaru ñu yaasir ne ko àdduna moom bul ci ñàkk dara dara ba metti la ndax juróom-benn yi rek daanaka moo ci nekk te loo ci seet dëgg-dëgg du am solo mooy lu ñuy lekk ak lu ñuy naan ak lu ñuy sol ak lu ñuy fóon muy neex xet ak lu ñuy war ak lu ñuy am bànneexub sëy mu ne ko li daq ci luñ ciy lekk mel na ne mooy lem te lem boo ko dee seet mbindaafunum yàlla mu xaw a néew doole mi yemb yemb rek moo koy defar ak naanam it xëy na ndox daqu ci waaye moom lañ mënta ñàkk lu bokkut ak mu mënees na ko ñàkk ndox rek mooy li nga xam ne moom dañu su ko ñàkk ci dund te mu ne ko gis nga ne li yàlla sàkk lépp ci yam muy nit muy leneen yépp ci yam ci ndox moomu le la gën a foor ci lu ñuy sol ci àdduna mooy sooy te mu ne ko sooy ay sax ñoo koy ràbbu fekk na nag daa am ay sax yoo xam ne ñooy ràbb sooy léegi daañu ko defar nag moom sooy ci usine yi ak jumtukaay yu des waaye ci boobu ci cosaan moom sax yi ñoo ko daa ràbb mu ne ko li gën a foor ci lu ñuy fóon muy neexet mooy misk te misk ñoom booba dañ ko daan amee ci deret kéwél mooy kéwél day am ab tut boo xam ne bu yàggee ci moom day mujj bu day riisu lu mel ne garab rek mu daal di rot loolee ñuy wax nag ab tut wala ab géer deret nekk ci biir waaye day neexeet lool ñi di ko def misk la muy doon doon sax deret du tee bu dee ci fiq boole nañ ko ci yi nga xam ne laab nañu sañas na ko jëfandikoo nga xam ne kon miski bi mu wax nii moom ñoom ñu xamoon ko ci yooyu jamono ci dereti kéwél la daa bokk boole wuñ ko ci deret ji doon sobe moom nangu nañ ku ko jëfandikoo danga ko jàng ci fiq moo tax mu ne ko li dàq ci lu ñuy fóon muy neexet ci àdduna mooy misk te misk mi ngi bàyyi ko dereti kéwél di gën a foor ci liñ ci war ci yooyu jamono mu nekk mooy fas te gis nga ne fas yi dañ koy war di ci xeex di ci rey góor ñi ñi daanu bàyyi ko ci kaw gannaaw yu fas yi lu gën a foor ci luñ ci joteel di ci am bànneexub sëy mooy jigéen te mu ne bokk ne seet weesuut ñaari sawukaay yu tase